taala yéen a kaay gi de Le Quotidien nee na askan wi nga xam ne ñooy yeewoo ca Mbambilor ñoom nag nee nañu daal duñu benn yoon ñuy jël commune bu Mbambilor di ko dugal fi nga xam ne maanaam mooy Sangalkam mi nga xam ne ay jamono moom lañ dénkoon lépp loo xam ne jëm na ci wàllum décentralisation ci yéen a kaay gi de L'Observateur na lii nga xam ne maam la moom la Macky Sall jamono ji règlement de compte la waaye nag am loo xam ne askan wa nga xam ne ñoo fa yeewoo wuruñu ko nango ñi nga xam ne ñoo dëkk ci diwaanu Yëmbal ak diwaanu Malika foofe nag askan wa fa nekk ñoom tim fipp nañu nee nañu duñu nangu benn yoon ñu leen di néewal doole ba ñu ñu si nopp bu ñu sañum geera yéen a kaay gi de la Quotidien ñu xëy fekk fa Ndiagne Diop mi nga xam ne mooy maire bu Bambilor moom nag nee na Sangalkam la ñu waroon a jël maanaam dugal ko ci Bambilor loolee moo yenu maanaam waay nag ñuy jël Bambilor di ko dugal nag ci biir Sangalkam ngir nag ay règlement de compte ci lu jëm ci wàllum politique loole mënuñu ko nangu tey mënuñu ko nangu ëllëg yéen a kaay gi foo xëy di ñu xibaar naan ñu découpage administratif bii nga xam ne Macky Sall koy def ci Ndakaaru maanaam nag dara warulu ko lu nag lu jëm ci wàllum calcul politique yéen a gi di Walf Fadjri nee na nag Macky Sall jamono ji am na atu am na lu mu taafantalo ngir nag dàq li nga xam ne mooy élection locale yi yéen kaay ne na réforme ni moom la ñuy def daal dina indi ay coppate yu bëri bëri ci carte électorale bi Barthélémy Dias doomu Sampol Dias bi nga xamante ni moom la am du lenn lu du nëkk maanaam ay dealer yoo xamante ni ci ku jege la ñu nekk di def ay calcul politique Barthélémy Dias nee na Sénégal li nga xamante ni moo ko sonal maanaam opposition boo xamante ni ña sa ëpp ñëpp ay dealer lañu ba nag nekk complice nguur gi ndax li nga xam ne moom la Macky Sall bëgg opposition bi ñenn si ñoo ko jàppale yéenekaay gi xëy dañu xibaar naan ñu docteur Abdou Sarr mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon hôpital Magatte Lô ba ca Linguère te ñeenti liir ñàkk fa seen bakkan ñu ubbi ab enquête judiciaire ci mooma loole nag merlo na lool ñi nga xamante ni ñooy syndicat autonome des médecins du Sénégal ne ma samee sa ñoom nag tontu nañu Abdoulaye Diouf Sarr ñaari fan yoo xamante ni moom la ñu amal ki raw ñoom nag nee nañu duñu bàyyi benn yoon ak seen natango bii di docteur Abdou Sarr maanaam ñu koy sacrifier ndax nag jafe-jafe yi nga xamante ni maanaam moom la bërëbu fajukaay yi nag di dund jamono ji ci Sénégal gi yëpp la ndax bëri na ay bërëbu fajukaay yoo xamante ni ñoo ngi fay tudd li nga xam ne maanaam mooy ay lakk jamono ji nag ñoom ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk wàllu wér gi yaram gi ñoo war a def fulla ñoo war a def fayda te Abdoulaye Diouf Sarr dafa acharné wu ci ki nga xam ne mooy docteur Abdou Sarr waaye nag jamono ji daal mën na ñoo wax ne woon nañ naat ci guuxum soow am na loo xamante ni duñu ko nangu tey ñu ko nangu ëllëg te danañu jàmmarloo ak Abdoulaye Diouf Sarr defante ko ak mooma yéen kaay gi di direct news ne nag bala nga ne fa fii ci Sénégal bëri na nag ay fukk fukk fukk fukk nag cay poste de santé yoo xamante ni jamono ji maanaam boo fa demoon doo fekk ab te ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum wér gi yaram gi maanaam nag salaire yu bon la ñu ama ñàkku kaaraange gi nga xamante ni moom la ñuy jànkonte la fu ko waaye nat daana koy passé journal bi nee na wàllu wér gi yaram gi jamono ji ci Sénégal maanaam dafa feebar yéene kaay gi du Sud Quotidien xëy na ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ndaw ñu am fii ci Sénégal bëri na ay ndaw ñoo xam ne maanaam amuñu liggéey loole nag la nga xam ne moom la jura ndaw ñoo xamante ni am nañu ñaar fukki at ak juróoma jàpp fanweeri at ba léegi ni seen yaay yeeg seen bàyyi ñoo leen di dundal maanaam xale yu góor yi mënuñoo demal seen bopp du ndékk du añ du reer seen bàyyi yeeg moo leen yoral seeni soxla yéene kaay gi nee na xale yi bëgg nañu liggéey waaye gisuñu lu ñu liggéey ci mbedd yi la ñuy toog di taal caayan yéene kaay gi délibération xëy di ñu xibaar naan ñu collectif pour la défense des intérêts de Djilakh maanaam mer nañu ba foto nee nañu nag titre foncier bii nga xamante ni maanaam moom la Babacar Ngom bu Sedima di bàkkoo ne nii légal nii légitime ñoom nag nee nañu titre foncier bi baaxul te nag am na loo xam ne sax yéenewul maanaa te manipulation yi nga xamante ni moom la Babacar Ngom Sedima di def moom la war a bàyyi ndax Babacar Ngom fii lay waaw waa Djilakh man la ñu àndal waa Djilakh nee nañu àndu ñoo Babacar tey ànduñu ak moom ëllëg te nag lenn kese moo ko war a maanaam jël nag suuf si jox ko ñi nga xam ne maanaam ñoo ko moom yéen a kaay gi du source a ne na ñi nga xam ne ñooy waa Jilax ñoom nag mer nañ ba futtu jamono ji di laaj seen suuf yéen a kaay gi di vox populi Seydi Gassama ñoom am ne si jamono ji nag li nga xam ne moom la ñuy sàkko ci Babacar Ngom bu Sedima mu jël suuf si jox ko ñi nga xam ne maanaam ñoo ko moom yéen a kaay gi dee sata xëy dañu xibaar naan ñu championnat bi Espagne jamono ji mbir mi na lool lool tey ji Barcelone dina laale ak Atlético Madrid Real Madrid di laale ak Sevilla yéen a kaay gi di sunu lamb